groupe whatsapp bi nga xam te ne dañu xam Dekel Lam Thiès je suis le président en activité directeur en activité ñu am suñu ay gan yu mag yu ñëw fi Thiès seet ñu di nuyu le président mobile mi nga xam te ne mën na ko ni toog di nuyu Kona mi nga xam te ne mooy porte parole bi di nuy suñu parrain Balla Diouf di magum jëm mag ma bëgg jàmm dox ci jàmm di nekk mag mu dëggu. di nuy agogo mi nga xam te ne mooy trésorier bi bon li waral jotaay bi nag lenn la ndax Olof Ndiaye dañ bu fukk di gas fukk di suul bu ndee bari rek waaye foofu lu leer moom mënu faa am ñu ñëw fi pour xeexal làmb ñoom ñu ne ñoom ñii ñoo ne làmb du Dakar rek làmb la waaye kon ñun Dakar dëkk bu ñu yuuxoo ba noppi dañuy dem Thiès ñoom ñoo xam ñoom li nga ñoom seen jafe-jafe ci làmb ngi la ñoom ñu bokk àndandoo xeex mhm. a ñoom tey jii ñu fii biir Thiès benn dëkk ñaari gaar nga xam ne fu waaye jëm fa ngay ko foroom fa lan lay xaar ñu ne foofu ñu ne ñoom suñuy mbokki mbër ñu laaj leen ñoom laaj yan jafe-jafe lañ am ci làmb ñu boole ko am ñoom seen i jafe-jafe ñu bokk lépp mën ko xeexandoo ndax lan ñu respecté mbër jox ko gëddëm jox amateur gëddëm waaye CNG bi xam moom ñi muy def ñan la ay doomu aadama njaay lay def noonu tamit mën am seen gëddëm loolu moo nekkoon nuyoo bi ah kan naa ko am gantaraane maa nga dolli cere maa nga dolli ñeex kon ñu bàyyi président mobile moom mu ibbi rek Balla Diouf asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa maa ngi nuyu waa Kajoor ñëpp ah di kontaan trop ci teew fii man la Balla Diouf euh, ancien lutteur euh, membre euh, écurie Jambar Wrestling Academy nekk aussi président d'honneur bu association des jeunes lutteurs jeunes lutteurs yi nga xam ne tey ñoom ñoo jóg te seen avenir en main parce que ay mag buñ la jiitoo te duñ la geesu bu yàggee dañ lay fàtte ñoom nag bañ ñu fàtte leen bañ ñu fàtte seen carrière bi am valeur bañ ñu fàtte ñi nga xam ne tey ñoom ñooy avenir u Sénégal ñooy avenir u làmb te kenn coowlu leen moo tax tey ñoom ñëpp ñu jóg doole seen do boole seen doole boole seen xalaat boole seen pas-pas boole seen ambition pour kat Sénégal gii ñu respecté fi mbër. ma nekk koo xam ne wax dëgg yàlla yàgg dund ci association yàgg fekkee lu bëri lu xew ci làmb ba tax na tey ñoom injustice yi ñuy dund nii tey nu mu leen laalee noonu la laalee ñu bari xëy na nag du ñëpp a ñeme ñëw toog fii ànd ak ñoom mais 90 pour cent wu population sénégalais bi yëpp ànd ak les jeunes lutteurs ci li ñuy wax. parce que dëgg du rombi nopp. kontaan trop tey ñëw fekk ci suñuy mbokku mbër suñuy mbokku sénégalais suñuy mbokku jeune suñuy frère ñi nga xam ne tey ñoo nekk fii ci Thiès benn dëkk ñaari gaar li nga xam ne tey ñun lu ñuy dund benn ci Dakar ñoom ñu ngi koy dund fukk fii ba pare boole ko dignité boole kook ngor boole kook jàmbaar ba pare gëm seen bopp tey mun naa wax ni tey féppay metti ci Sénégal parce que boo xoolee nit ndigg la te làmb mooy ndiggu senegal nit ndigg la te li gën a am solo mi ngi ci ndigg ci doomu aadama te làmb mooy ndiggu Sénégal lu tax mooy ndiggu Sénégal tey ku jóg làmb ngay seetaan produit bu jóg bëgg ñu xam la bëgg nga jar ci làmb ngay dugg politicien bu jóg kenn xamula tojo fenn pour ñu xam la sa yoon gaaw ay buntu ubbeeku ci làmb ngay dugg tey communicateur traditionnel bu bees bu ñëw doo dem ci xawaare doo dem ngoyaan doo dem feneen ci làmb ngay ñëw di wax ci mbër du dëgg ba tax ba ci presse bi sax presse bu jóg tey foog muy bind làmb pour amateur làmb yi mën la xam kon tey lool du ay caaxaan loolu nag ñi ko yor mooy la jeunesse sénégalaise mooy jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw doon ay sénégalais dawuñu seen dëkk immigré wuñu demuñu fenn toog ci réew mi di liggéey di entraîner ba pare gérer paix socialu réew mi mooy tey ku ci nekk mbër ba nga dëkk gox ba nga dëkk la nga fay def politicien ba fa nekk du ko fa def du dëgg tey jeunes yu bëri bàyyi nañ dëkk bi jël gaal yi ñoom ñu toog ne dañuy téye seen sport national gëm seen bopp toog seen dëkk ñoo xam ne 45 ans ñu ñu ñu retraité on est les plus jeunes retraités du Sénégal amuñu IPRES amuñu IPM amuñu kenn te pourtant ñun bu ñu nekkee mbër nekk ay ndaw di bëre di daan politiciens yeeg ñëpp safoo la ñëpp di la ndamoo boo màggetee wala nga am benn tolof tolof dootoo gis kenn loolu ingrat la dafa ingrat loolu kon ñun suñu métier. waa jafe-jafe yi jeunes lutteurs yi am mooy tey amuñu amuñu ku leen wax ku leen jooyal amuñu ku leen défendre ba ci biir écurie yi ñu nekk tey damay wax ni rek làmb d'une manière général fépp ay metti mais mbëri ndaw yi ñoo ci gën a sonn xam nga ñoo ci gën a sonn parce que ñoom ñoo amul 500000 ci làmb ñoom ñoo amul un million ci làmb mais ñoom ñoo yor écurie yi mbër bu mag bu fi percé tey mbëri ndaw yi ngi ñoo la téye di la kontaagal boo amul condition physique cardio ci mbëri ndaw yi nga koy amee boo amul rapidité ci mbëri nga ndaw yi nga koy amee boo amul réflexe ci mbëri ndaw yi nga koy amee ñu nekk ci écurie yi ñu téye leen kontaagukaay kase amuñu kenn amuñu benn yoon mbër mu mbër dafa war a jógee mbër mu ndaw moo war a mootul war a fayetul 100000 francs ci làmb mbëri nga xam ne tey ñooy fayeeku 100000 francs ci làmb ñoo ëpp mbooloo seeni combat moo gën a neex te tey ñoom bu ñu amee gàllankoor am jafe-jafe kenn du leen faale kenn du leen waxal tey loolu mooy jafe-jafe yi jafe-jafe yi gën a mag tey yi mbëri ndaw di dund mooy injustice bu ñuy dund ci biir làmb ci biir écurie yi ci biir Sénégal. waaw salaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ suñu Seex Fall Ngunda di ñaanal sëñ Muntaxa Basiiru mu yàgg fi lool di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb faal mi xalifa général Baye Fall yi mu yàgg fi di ñaanal sëñ sëñ Bay si Mansour waa Laayeen waa Tiwaawoon waa Njaasaan waa Kaolack xalifa généraux yëpp ñu ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi lool te ànd ak wér woy jotaay bi nag li ko waral ñun ay xale lañ war ñu woon sax jër fii parole ndax ñu fi toog mun naa ne ñun ñoo fi gën a ndaw mais gars yi jox ñu cër ñëw juge ba dakaar déplacé wu fekk ñu fii kon loolu lu rëy rëy lu rëy rëy rëy ci ñun la te li tax ñu jóge Dakar ñëw ba fii dëgg moo leen yëkkati tànki dëgg moo leen indi ndax bu loon dëgg duñ déplacé wu gën ñu doon ay champion déplacé wu jóge Dakar ñëw ba fii loolu dëgg rek moo ko man ko bu loon dëgg loolu du am di rafetlu jotaay bi nag wooy di wax ni man laay goote mobile mooy sama président ndax li tax ma ni mobile mooy sama président ñoom lañ mën a gis ñoom lañ mën a dégg te tey jii nit ki buy ànd day ànd ak ki muy gis ak ki muy dégg ak ki koy informé mais nit ki mënul ànd ak koo xamante ni buy dem du ko yëg buñ koy jox kenn du ko yëg luñ ciy def kenn du ko xam non man mënuma ànd ak kooku man ki may àndal mooy ki may informé loolu moo waral ma ni mobile mooy sama président. waaw jeune lutteurs yi moom mun naa ne du Thiès kese mhm. jeune lutteurs yi moom ñëpp ay dund lu metti ndax gars yi nekk ci kaw forme seen association ci ñoom la yem rek dañuy seet tourner seen biir rek ñun yëgu ñu tinuñ mais metti bi moom foo ko natt wees na foofu mais ñun nag comme li saa fi wax sànq. comme li comme li comme li comme li comme li Kona wax sax comme li kii wax sànq Balla Diouf ñun ñu ngeeg suñu dignité ñun ay Baay Faal ndax dañoo xam ne xale lañ te bu daggul dikk ñoo ngi sant yàlla bu wér nag mais suñu làmb waroon na dépassé fii loolu lépp euh, la ñàkk dox gi ñàkk làmb dox surtout ci jeunes lutteurs yi moo waral loolu mais ñu ngi sant ñu ngi gërëm waaw mais waaw waaw mooy comme lii rek comme lii rek tey jii ay mobile ay Balla Diouf ay Kona yi nii dañoo ñëw pour pour pour dooleel jeunes leaders yëpp moo waral ñu ñu ñu formé kuréel gii nii association bi waa ndax tey jii ñoom mën naa ni ñoom ay ay ay bopp lañ daal tey jii ñun suñ lépp dañ koy bàyyi ak ñoom ndax jaar nañ ci mbër mu ndaw ba toll fii ñu toll tey kon xam nañ ñun. catégorie bi ñu toll nii li ñu jànkonteel ñoom xam nañ ko ndax jaar nañ fa mettiwaay bi xam nañ ko dañ dañ leen di bàyyi rek ñoom ñu doxal ko ñu ngi seen ginnaaw ñun. waaye ginnaaw bañ sante yàlla di julli si yenente bi ñoo ngi sant suñuy ñaari waajur bu baax a baax boo jaxaw la nekk école de lutte Samba Diaw Thiès balaa maa wax dara damay sant tamit euh, déplacement bi ngeen fi def parce que tey jii lii nekk na lu rëy nekk na li nga xam ne tey jii daanaka mun naa ne ñun Thiès nañu lu mel nii. woote woon nañ fi benn presse raison mbëru raison yëpp ñëw waaw ah, waa Mbuur yi waa Kayaar yi gaa yëpp ñëw waa Tiwaawan yi kon donc lii bu amaatee mën naa ne sant yàlla la avancement moo ngi am waaw ñoo ngi leen sant bu baax baax ci déplacement bi ngeen déplacé wu ñëw parce que dafa il est temps dafa jot parce que mbër dafa dafa sonn waaye Serigne Touba mbër mbër bu ndaw lu nekk lay daj yow luñ lay fay. li nga siy def moom mooy ëpp fukki junni yoon waaw. léegi gis-gis bu ma si am rek mooy ñun ak ñoom ñu booloo ak yeneen raison yi lépp nekk benn parce que à partir de tey ñun ak ñoom booloo nañu pour xeex lu nekk si wàllum làmb. waaw wàllum làmb suñu jafe-jafe bari na trop si mbër bu ndaw parce que tey jii bu fekkee tey exemple rek bu fekkee cees fii la mën naa ne amatuñu fu ñu bëree parce que champ de course moo fi ne te pour ay fas la du pour ñun bu ñu fa tëggee làmb sax organisation bi du normal mañaa lañ defaroon pour ñu fay bëre mais dañ kaa defar léegi pour jour yi te bëgg nañ nu arène nationale amee arène ay régional am ku si mel ni Thiès ak yeneen région yi mu am moo ciy taxawaayu waaw ñu doon say rek foog ñu nekk say ñu xeex ko te incha allah bu ñu koy xeexee dina am. incha allah waaw beneen jafe-jafe tamit bu ñu amaat maanaam muy mbër bu ndaw euh, licence bi ñuy fay waruñoo tollook mbër bu mag bi licence bu muy fay parce que ñoom dañuy fayoo ko ay millions mbëri ndaw yi di fayoo ko ay cent mille te ñooy bokk même licence. loolu yëpp gars yi war nañ kaa xoolaat. en plus non yi moom macha allah parce que ki si mel ni maa ngi koy ñëw passage mi Perside Jaxate moom day jàpp si affaire yi promoteurs yi ndaw yi tamit macha allah xëy na seen loxo jotul seen ginnaaw mais gëm naa ne ñoom bu ñu leen gars yi tegee loxo moom euh, dina avancer tuuti. waaw ambulance la ikiri bëgg sa waajur ginnaaw bi ñu sante yàlla junni si yonte bi di sant suñu ñaanu waajur nuyu ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñëw si ñun ñi nga xam ni ñoo ñu fekk si muy waa Ndakaaru amuñu seen fay nag parce que lii dañ koo yéex a def seen biir rek ñun mbëri ndaw yi dañ ñoo fàtte xanaa xamoon mbër mu mag boo demee ba jug mbëri ndaw yi ñoo tax parce que boo demee bay bay lekk ay millions mbëri la te saa ngi dégg mbëri ndaw yi ñooy darti darti ñoo lay may contact foo nekk ñu fekk la fa di bëreeg yow ba yàlla may la li nga bëgg kon waroo leen fàtte parce que mbër mu ndaw mooy lépp tey jii man da mënuma mënuluma sama bopp dañ maa buux parce que samay raq laa àndal noonu la demee si bépp mbër mais mbëru mag yi buñ ñu fàtte. tonoor yi làmb ji yëfi mbër dong. pool baa ngi nii ñu tëjee ñu tëj suñu làmb si loolu fu ñu teg pourtant tey wàll day tëgg waa li muy tëgg ñun mënoon nañu see bool ñu ubbi suñu làmb parce que am na ñoo xam ne làmb lañu yaakaar boo ko tëjee dañuy am problème yaa ngi dégg moo tax man la ñun teguñu fu ñu war a teg parce que joxuñu ñu cër man lan laay dox damay dox si mbedd bi ñu naan nervi yaa ngi ni man looloo ma gën a métti. te boo dee xool ñi nekk ci salle di entraîner rek doonu ñu mbër ñoo ñoo génnoon di def loolu mais mbëri amul kenn ka nga xam ne da ñàkk fay da dem taxaw naan day xeexal sa moroom ay supporter loolu dafa amul ñun de man Matar laa la wax nga xam maa jiitu suñu écrit Thiès laay wax sax ba mu daj ñun kii mooy suñu président ñun ñëpp muy neex muy nakari moom la ñu gis moo fi ñëw te mbëri mag yi sax boo leen woowee ñu jël seen numéro ni ko kàppaj tëj kii tey moo ko woowee jot ko yaa ngi dégg kon lu may dox naan damay dem si mbër bu mag naan ay lii ak lii ñoom li ñuy am yàlla mën nañoo wërsëgal lu ëpp loolu ñu am ko ñun man du dem di darti darti si benn mbër bu mag te gis samay moroom ñuy reyante ma war a nekk seen ginnaaw tamit ànd ak di reyante ak ñoom nee naa leen foo leen jugee man dinaa jug su équipe yëpp dinañ jug si kàttanu yàlla waaw ah, loolu laa bëgg a ñu sant yàlla jub ñu ngi sant suñu ñaari waajur ah di sant ñu fi teew ñëpp journalistes yi mbër yi coach yi ménagères yi ñu ngi sant ñëpp parce que ñii ñi fii ñi fi toog ñëpp ay responsable lañ sant mobile Kona baala Diouf ak ñu àndal parce que lii yombul moo mënoon ñu yamale seeni mbir Dakar bañ génn ci région bi mais day wane ni ñi tolloo mbagg rek ñoo mën a lëngoo parce que tey seetaan naa seen déclaration passée ba misaal bi mu xëy ni ma dañuy ñëw Thiès dama sawar pour pour pour ñëw fii tamit parce que ñoo bokk li ñuy jooy ñu ñëpp boo xoolee ñun ñëpp ñoo bokk naqar bi mooy làmb la ñuy dund ñu xëy tëj làmb waaw comme ni ko grand bi waxee rek tiir boo lañ koy wax bu Tiwaawan xam nga di représenté waa Tiwaawan yëpp nag parce que ñoom ñëpp bu ñëwoon amaana fii dina dina ëpp nii waa Thiès tamit am na ñu waroon a ñëw mais ay Modou Anta ñoom ñëpp xam nga peut-être dañu am empêchement moo tax waaw mais xëy na balaa émission bi jeex dinañ ñëw di wax ni xam nga làmb metti bu metti moo tax xaaj gépp bàyyi nañ te bi ñuy bàyyi seen digg doole lañ toll bàyyi làmb boo seetee bari na ci sportif yoo xam ni bi ñuy bàyyi làmb ñu ngi toll seen digg doole li booy jaxaa wax sànq parce que boo nekkee xale nekk ci koñ xam nga gisoo ko la jàppale ngay góorgóorlu di xëy di dem ci dini ngoon nga dem saal xam nga dafa metti ci nekk xale waroon a def leneen bàyyi ko fa di def làmb tey làmb xiital na tey ñu bëri waroon a def lenn la bàyyi ko ndax làmb waaw kon loolu yoon la ñun ñu taxawuñu jàppale ñu mais ci suñu biir comme li li ambulance wax rek ñun ñoo mën jàppale suñu bopp parce que mbëri mag ñi talu ñu ñoo seen bopp lañ tal man gisuma sax mbëri mag yi ñun man ñu sama bopp laa def man mbëru mag parce que li may am du mbër mbëru mag mooy fekk di ma ko jox xam nga du mbër mu ndaw du benn mbër mooy fekk naan ma lii wala laa moo tax xam nga Euh, di wax ni ñun ñi ñi ma àndal ñu ngi ci ginnaaw mobile parce que moom lañ mën a gis waa Tivaouane yëpp ñu ngi sa ginnaaw di la encourage di wax nag li nga li nga yenu bu ko def comme Gris Bordeaux na yaatu waaw na yaatu parce que ni mu ñëwee Thiès ni mu ñëwee Thiès war na ko dem fu nekk parce que làmb léegi dafa yaatu nekkul Dakar nekkul Thiès nekkul fenn fépp foo dégg rek am na mbër ba Tambacounda ba Kidira amaana lii mooy tax ñu xam leen waaw man maa waroon a bëri ci combat Siteu ak Papa Sow maa waroon a bëri combat spécial bi depuis daaw jéeg ba léegi maa ngi koy waaj heure bu desee quinze jours ñu yàq ko bi yoon mu des une semaine ñu yàq ko te prochaine fois da ngay te prochaine fois da ngay da ngay da ngay reprendre ah, mu doon lu métti waaw day doon lu métti du promoteur bi moo lay doole xaalis du keneen moo la fay fekk soit say copain wala say gars yi ñoo ciy jàpp mais métti na trop di wax ni loolu yëpp bëgg làmb moo tax ñu nekk ci xam nga ak ñàkk organisation suñu biir loolu moo tax mais di sant yàlla xam nga di nuyu ñëpp di jégalu xam ni suñu waxee lu dëng si ñun la bu ñu waxee lu jub tamit nga xam ne suñu borom la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. salaamaaleykum ah. waa Kees yëpp waa Sénégal yëpp ñu ngi leen nekk nuyu ku nekk sa tur ak sa sant Onde le Fou la fils de dëgër musóor maa ngi nekk écurie xam sa cosaan waaye li ñu fi indi tey mooy jafe-jafe làmb li waa Kees di dund moom la waa dakaar di dund. biir yi ñuy jox mbër yeeg ministre bi ñàkk respect bi mu jox bi mu ñu teg ak président CNG bi respecté wu ñoo yooyu lañ fekkaat fii moom moo nekk Diourbel moo nekk fépp moo nekk fépp ci Sénégal moom jafe-jafe yooyu la ñëpp di dund chaque jour ñu ngi koy wax nag di dénoncer mais pour man ñun mbër yi ñun ñoo ñàkk fayda parce que ñu ñu ëpp ci population sénégalais yi ay mbër lañ mais respecté wuñ ñu tegu ñu ñu fi ñu war a teg affaire bi nag chaque jour maa ngi koy wax du lemm lemmal quoi parce que nguur gi fi ñu nekk avant ñoo toog wax nañ ñu ñii bugguñu làmb te daa mel ni loolu dëgg la parce que Covid bi bi mu ñëwee yëkkati nañ 3 milliards ñu jox ko musiciens yi mbër amul 1000 francs amu ko ba pare dañuy continuer di ñu insulter di ñu saaga chaque jour lu bon lu am ci réew mi ñu ni mbër yi lañ ñun lan lañ bëgg suñu grand Balla Diouf wax na ko léegi suñu retraite yàggul 45 ans la dañoo bëgg ñu nekk fi di lekk ay desit ak di wër di ñaan comme ni ko Siteu di waxee chaque jour. mais mbéju kanam borom moom moo koy fajal boppam ku leen joxati billet mbër mu ndaw bu leen ko jël parce que du leen yóbbu fenn ku leen ku leen bëgg a teg loo xam ne nii du yoon bu leen ko nangu ñun dañoo war a dëggal suñu bopp mooy amul association bii amul association amul bële ki fépp fu mbër mënti nekk Sénégal dañoo war a nekk benn di xàcceendoo di dóorandoo metti na trop nag ci ñëpp ni mu méttee fii noonu la méttee dakaar li ñuy daj ñun Dakar kenn xamu ko président CNG bi nee na ku pikiiruwul doo doo doo bëre te doo dugg ci stade bi est loolu yoon la boo dee dugg ci kaar yi dañ lay laaj carnet de sante kenn du la ko laaj. boîte yi yi kenn du la ko laaj. football bi football bi kenn du la ko laaj. amul fenn fooy dem ñu laaj la sa ne masque lañ existé ak gel mais lan moo tax ñu bëgg ñu koo def ñun bëri pourtant biñ ne baf mi troisième vague am na lépp waxuñu woon dara dara arrêté wuñu ko làmb kasee doxul lépp a ngi dox. làmb kase te waxuñu ci cause yi tax ñu arrêté làmb waxuñu ñu ko kon ñun lan lañ ñu jàppee te ñëpp xam nañ ni làmb ji ñuy ubbi nii nii nii nii màggalu Tuubaa bii di ñëw nii moo tax ñuy ubbi làmb ji parce que xam nañ ñi màggal gi day am te màggal gi bu amee sëñ ñun sëñ bu mag bi moo ñuy moo ñuy nañ xaar grâce rek ñun sëñ bee ñuy gracier waaw ngi gàttal kàddu yi nag di leen bëggee yéen ñëpp ah AF waaw auzubillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli si yonent bi ñoo ngi sant suñu ñaari waajur ñoo ngi leen di nuyu yéen waa Thiès di kontaan lool ci bokk ak yéen jotaay bi ak bokk gi ngeen bokk ak ñun xeex bi ñuy xeex ndax li ñuy xeex yëpp suñu intérêt la ñun ñëpp wax dëgg yàlla ñun ñëpp bokk li ñuy fayeeku ci làmb ñun ñëpp bokk li ñuy jënd si licence ñun ñëpp bokk xeex bi ñuy xeex ci làmb comme ni ma koy waxee chaque jour làmb yi dàq si làmb yi ñun ñoo koy bëri combat bu mag boo ko seetaanee ñaari coup bu takkar naa see àdduna ñëpp nit ñuy bëri nañ ñaari coup laa la wax de ñun dañuy xeex bay bëgg a dee jël ay coup bay bëgg a dee te kenn du ko wax ñun amuñu sax cër bu toll ni ñu invité ñu ci plateau yu mag yi benn bu ci topp mooy état dafa war a jàpp sa làmb état jàppul ci làmb da ngay faral di dégg ñu naan tabaxal nañ ne arène nationale mais waru ko ñun waruñu ko am te don la ñaata stade football moo fi am. Mm-hmm. arène nationale dafa ñëw làmb dee. football bu ñuy football ci stade football yii nii li ñuy génne ci xaalis matul 100000 pour louer stade ñun bu ñuy louer ci stade football yi matuloon 500000 ñu ne ñun dañoo tabaxal suñu stade bopp ñun bu ñëwee suñu stade bopp mënuñoo tëgg ndax lan foo nga tëgg foo nga teg ay millions kon tey état lu mu waroon mën jàppale làmb lenn la. yebalu fi ay sponsor dugalul xaalis ci làmb ji xaalis bi CNG dagg ñu xamuñu fu mu jëm xaw ma état koy jël xaw ma keneen ak keneen a koy jël état waroon naa mën a jël suñu stade bii mu gën a yomb avant stade bi bi fi nekk lu gars yi doon fay Demba lu ko gën a néew lañu waroon fay ci stade bee dina dimbali suñu promoteurs yi ñuy tëgg su ko defee promoteurs yi tamit nag boole ci nag gore gu toll ni di bàyyi di joxe ay billets milliards yi ñuy xëpp ci mbëri yu mag yi ñu séddale ko si mbëri yu ndaw yi ñëpp di bëre état bu bëggee jàppale làmb foofu lay jaar na ibbi esaat yi yëf yi yomb esaat bee ñun ñoo ko moom waruñu si dépassé cent mille francs loolu bu ko defee promoteur yëpp ñëw waaye promoteur bu mën boo xamante ni day tëgg budget budget làmbam 3 millions la balaa moo tëgg nga génn loo ko 2 millions 500 fan lay fan lay tëggee làmb mais esaat bi war naa mën a yomb encore une fois état. jàppalewul làmb ñun nag lenn moo ñu fi indi mooy association bi nekkul association boo xamante ne dañoo tekk ndakaaru bëgg nañ bépp mbër boo xamante ne yaa ngi ñuy déglu ak foo mën a nekk si àdduna bi ñun ñu ngi lay woo ci lii tëjaluñu kenn bunt mbooloo lañ soxla ñëpp doon benn mbër yëpp doon benn kàddu yi ngay dégg ñu mbër yi nekkuñu benn mënuñoo nekk benn ñoo nañ koy weddi te bëgg nañ carrément lépp lu mu laaj ci ay jéego pour def ko dinañ ko def fépp mbër nekk dinañ la fa fekk képp ku ñu war a contacter dinañ la contacter képp ku ñu contacter tamit dinañ toog dégloo ak yow képp koo xamante ne yaa ngi ci làmb ñu war a mën a waxtaan ak yow ñun teg nañ suñu programme yoo xamante ni ñëpp ñu ŋànk làmb gis nañ ne war nañ mën a waxtaan ak yow nag ñu xaar dinañ ñëw si yow looloo ñu tax a jóg bennoo bokk benn kàddu comme nu ko gars yëpp waxee ñu am benn kilifa di mobile benn kilifa la am muy mobile bépp mbër laa la wax ñu ngi lay woo ci lii ñuy def lépp loo xamante ne nii jaaxal na la si woo ñu nga laaj ñu ñu wax la sunu xalaat ñu wax la li ñu tax a jóg jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa mbooloo mi delluwaat du nuyoo rek bi wax jafe-jafe yi nga xam ni moo ñu fi tax daje comme li gars yi wax rek euh, nit ki boo ko nee damaa bëgguñu ànd nga ne ko kaay jiital ma nga jiital ko mu nekk ca kanam mooy ki nga xam boo ko woowee da koy gis soo ko woowee tamit danga koy jot mooy mobile muy toog man ci axlu dëkk làmb gu mag ca laa bokk groupe ba tey suba rek bokk naa te ñetti vocal mais dama faa dugg ngir xaritoo ak jàmmoo ndax su ma gisee ci lu baax ma leer ma ne am naa ci idée ma wax loo xam tey moo ci yokk su ma gisee loo xam tey safaan la ma wax ko sama kàddu ngir bëgg loolu am njariñ man lépp lu doxal làmb man maa ngi ca biir mm-hmm. ak côté boobu mën a nekk nag am na sax ñoo xam ne ñoom bi ñu waxee dañ leen leen génn ci groupe ba ma leen loolu ba leen ko def ndax gannaaw ñun ñëpp ñoo bokk li nga xam tey jii mooy xeex bi ni xeex mooy mbër am gëdd bi gi topp mooy euh, man dafa am fu may waxee foo xam ne xëy na peut-être gars yi waxewul may waxee mooy sama wax du neex gannaaw ñun lii ñu yor état bëgg ko état nan ko war ne ko yow li yor ñun bëgguñu ko loolu rek la état bëggul làmb ngeen taxaw man lu gàtt gàtt sama koñ man xanaa lu gàtt gàtt man saa fi mbër xanaa am naa fa juróomi carte mobile mi fa mu dëkk fa juróomi carte keneen ak keneen ak keneen noonu nan ko wan te incha allah danañ la fi jëlee ne ànduma ak yow tey mu teel xam ci bi muy neex mu li mu lay koñe mu xam ne day métti mu ngi lay koñe te instant bi fi la maanaam santé mbër yi li ko ko naa di waxee kañ la ñu bi fii la ministre bi taxaw tam ñu dëmm mais pourtant ñun ministre de la justice bi wax loolu ñun suñu suñu ay camarades ñi nga am prison bu doon ñoom bëgg na làmb lan moo tee bokk bébé sàll noonu ñu koy ñaanal yàlla suñu borom xaar agan amatu ko kenn moo ko faj ñun bëri ñoo doon ñoo doon génn suñu ak suñu dërëm ak dërëm di tegalee te waroon ñu mën a am kees boo xam tey ñun sax faaloon liggéeyuñu daxaare ma sàmba wala beñee ma demba lépp ñun mbër mën man nañ ko am amul lu mbër am mënut am ci réew mi ñu nekk ñun nag ku ñu bëggul bëgguñu la ku ñu la mobile ñoo man say wax amul benn autorité Thiès bu naan saafi la ñëw man dama bureau kenn kuy mu am combat nga takk bi dem di set teel ko la yaakaar ba ma xamee nag koo yaakaar yàlla la yaakaar laa fi ba ñoom ñun yaakaaroon ñëpp dem jàkkaarloog yàlla buur bi ngay te suñ zone nord bii ñun suñu dëkkee muy zone nord ñun nañ ñu ngi leen di xaar ba waxtu woto jot ba kenn dikk teg fab tànkam ñun ginaaru kenn nenuñu li Iran Ndao di wax ginaaru kenn nenuñu danoo sonn ci benn set ak cinquante mille francs woon ñu say nit ñun ku bëgg suñu bëgg-bëgg ñu bëgg sa bëgg-bëgg ku bañ suñu bëgg-bëgg loo bëgg lu ne bu soñee bu soñoon loolu bëgguñu ko Matar Ba le ministre des sports bi pandémie bi amee ñun les secrétaires li ñoo dajale suñu xaalis dem jox ko mais li lay waral état bi fi nekk du waxkatu dëgg te du nit dëgg borom doole ki dajale fukki dërëm cereem ñaar fukki dërëm meem dajale ko ba mat ay millions di jox la ko amoo lenn loo ko fee lu dem jox ko ay fecckat xanaa loolu may rend leen non suñu xaalis ay fecckat lañ ko jox ba pare fecckat yi ñun ñu tëj suñu làmb yi ñoom seeni fecc ñoom mi ngi dox ñu def seen gagne-pain amul benn ministère bu tëj Sénégal benn ministère tëjul ministère yi saa bu ñu xëyee ñoom ñu ngi liggéey konaa mi da lay fayoolu yaas balu jox lu ñu fayoolu yaas keneen ak keneen ñoom ñoo bëgg agression amaat ci dëkk bi parce que yor sa yaay am sa doole tax xëy xëy suba amoo loo leen jox da ngay xëy ci gis ci mbedd bi gis ko yor iPhone X Max gis ko takk seen or nga ta bawoo dépense kër ga il faut nga réagir parce que gor su ne gor nga ñoom waxuñu loolu taluñu loolu ñi gàddaay dem bàyyi làmb ñii danoo baax di wax rek ñii danoo gore rek toog di wax naan boo waree bàyyi làmb yàgg na ñoom bëggatuñu làmb dox ku mës a gis làmb am ballage tak fukki fukki sa rek ñaar wala Modou Lo wala wala Gris Bordeaux keneen di damay bàkko ci làmb kan boo am ci àdduna parce que ñoom li ñu bëggoon am nañ ko àgg au niveau croiser les bras bu làmb yàqul tey yàqul Balla Gaye bu làqul làmb làmbul tey yàqul Gris ñun la yàlla làmb yàqu parce que ñoo ci amagul te sonn ji kon nag désormais ñun li ñuy wax nëbbunu ko gannaaw état bi fi nekk ànduñ ñun état ànd na yow ba koro ngay ànd ak ñun président bi fi nekk mandat bi moo ko fi bàyyi ci bu dee ñun mbër yi nag laa wax de ñun suñ carte ñoo ko moom loolu gars yi naan ma carte ma voix insha allahu rabbana duñ la votel ah mukk duñ ko def parce que ñu ñun bi ñu sonnee ci làmb laa yaakaar làmb état wala wuñu te mi ngi bëggaat troisième mandat ñu naan ay mbolo soo ñu naan golor yaa ngi ñëw kaa lañ ciy def bu soobee yàlla wasalaam. man la ko naa nekk écurie Lamsar nekk porte parole des jeunes lutteurs donc tey bureau jeune lutteur dañoo def déplacement ak dérangement ànd ak suñu grand frère bi Cœur de Lion dama bëgg kii ñu tàcc ko. dama bëgg ñu tàcc ko ndax lan moo tax ma bëgg ñu tàcc ko. mooy mujjee na puso bi mais réerul ci ay loxoom munoon naa munoon naa rëy munoon na noo xeeb ndax Dakar ba Thiès du caaxaan te nag dañ koo ko improviser bokk na ci ñi ko mujjee yëg mais yàlla dafa dogal mu bàyyi yitteem yëpp ak xat-xatu jamono ak ndakaaru ni mu bëree ndox foo jaar yoo ndox la mu sacrifié wu ànd ak ay rakam ñëw gunge ñu te amatul amatul benn intérêt ci làmb kon bëgg naa geste yu mel nii su ko mag ñi defoon tey du ñu beru geste bu mel nii bu ko ñu nekk ci kaw bu ñu jógee woon noonu tey ñun duñu duñu te duñu def lii tey kon moom dañ koy féliciter parce que ku def lu rafet dañ ko ko war a féliciter ngir ñeneen ñi jàng ci donc kon bureau bi yëpp lañ àndal ku mel ni Gakou 2 secrétaire général mu sama ginnaaw Agogo porte parole mobile mooy président bi ki nga xam ne mooy Ondou le Fou di ki nga xam ne moom mooy le régulateur moom moo créé lépp daanaka ñëpp ñëw nañ fii fekk fii suñu mbokku mbër suñuy nawle Mori Cargo boo gisee nag euh, ñu may wax nawle làmb dañoo desee nawlente moo tax man su may wax rek damay wax samay nawle mbër ndax ñun dañoo desee nawlente maanaam crise de valeur dafa bëri ci làmb crise de valeur nag mooy xeebante discrimination dafa bëri ci làmb ku bëre cinq combats daan kenn ku am défaite sax pour yow waroo toog ak moom léegi nag loolu si résolu ñun loolu dañ koo dindi complexe boobu doon dox suñu diggante woon ñoo nekk benn di xeebante te loolu moo ñu gënoon néewal doole parce que euh, diviser pour mieux régner moo am politique yi boo gisee tey làmb nekkatu seen préoccupation parce que dañoo diviser ak ak lu làmb ñoom au lieu ñu jàppale làmb mais ay nitu làmb la ñuy jàppale dañ lay xool nga nekk porteur de voix bëree am nekk star ñu xëcc la seen wet di la jox moonin jàppale wuñu làmb de li ñu waroon a def pour làmb dox dañ koy séddale ñu siiw ci làmb léegi ñu noonu quoi qu'ils sont au ñu jàpp ni lii ñu leen di jox nii buñ ko defoon ci làmb ñëpp ciy jariñu te ñoom it ciy jariñu seen way dina rafet dañ koy jël ne mugg ba autorité boobu di yàq làmb war a defar làmb su ko deful sax yow da nga koy rusa wax wala da koy ragal wax parce que am na fu mu la kepp parce jiite huit mille 8000 licenciés nga jox ko 10 millions c'est pas réfléchi rey nga ko ba mu dee jaxase nga ko ñi ko jiite. léegi ci à force que monde làmb di diviser ñoom politique yi si la ñuy gën a amee doole day tax bu ñu defee injustice si làmb duñ ko mën a ànd xeexandoo léegi nag ñun loolu lañ contourner loolu il faut que ça cesse buñ ñu jaxatee ci ci lenn. association jeune euh, lutteur en activité Gris Bordeaux jiite suñu amee problème ñun jeune lutteur dañuy taxaw kaas ko tey suñu jugoon tey jii bëgg a teg injustice Gris Bordeaux comme ni ñu ko defee woon ñun CNG bi ñu ko bëggee teg injustice ne dañ koy aj ñun ñii ñoo sol suñu dàll fajar teel ñu dem CNG ñaari mbëru faas ñoo fa ñëw muy Lac ak Gris 2 di rakam à part loolu ñun ñoo ñëw taxawu ko ba CNG aju ko man ca buntu ci buntu euh, CNG ba laa taxaw def déclaration ne Gris Bordeaux sàcc la Euh, Gris Bordeaux li mu wax dëgg la CNG ay sàcc lañ te ñun ñëpp wax nañ ko nañu tëj kii ca la nekkoon te boobu ne gi nekk na gi nekkatul face mais lépp ngir xeex kon ñun injustice en général la ñuy xeex ci làmb ñu ma Samba ñu ma Demba waaye nag ñoom li ñu tële ñun loolu la ñuy jéem a réussir parce que yàlla dafa dogal seen biir lañ nekkoon est-ce que mës ngeen a dégg association bu mbër jóge ci raison dem raison toog ak ñoom non maa ngi wax ak yéen musul am donc comme ñoom li ñu fayir ñun loolu la ñuy respecté teg ko te loolu moo jëmale làmb kanam mooy que la mbër ba ca koppuntum mbër ba ca ayra laaw mbër mi nekk Dakar ëppeewu ko dara ndax ku ko xas-xas kee mbër ba ca ayra laaw su defee lu dul yoon ñu ne mbër yëpp ñoo mel noonu kon encore une fois loolu yëpp dañu nekkoon foofu di ko combattre nangu ñu dégg parce que vision bi ñu doon tegal làmb xëy na ñoom xajul seen bopp bi ñu demee bañ na ay ndaw lañ te ñun jàpp nañ ñu société moo boo nekkee ndaw waroo am esprit de ñu xam dañ ñoo xatal mooy xeebaate bi ñu wax ñu dañ gedd beru daal sos association bi kon ni ñu ko defee fii dinañ ko def ci yeneen raison yëpp ndakaaru it amul président écurie bu ñu woowul téléphone ndax liñ leen teg seen loxo musuñu ko dégg liñ euh, projet bi ñu teg seen loxo képp kuy borom xel da nga koy approprier parce que projet boobu rek moo mën a mën a yàmm kanam état nag à force que di toog di victimiser wu man ko naa ñun ñëpp xam nañ suñuy jafe-jafe kon dèjà ñun yuuxu nañ ba ñëpp xam nañ jafe Sénégal asalaamaaleykum àdduna euh, ñi ngi nuyu waa Sénégal gi yëpp rawatina waa keeskaay gii nga xam ne fii lañ ñëw vraiment di rafetlu toogaay bi di rafetlu assistance bi di leen masaw suñu mbokk mbëri ci ginnaaw di wax ne li ñuy wax xam naa ne mun nañ koo ñàkk ndaw ndax ñoo bokk benn coono bi ñuy dund ñi si ginnaaw sax bu ñu jógoon bàyyi leen ñu toog mun na ñoo waxaaleel ñun ñu jóge Dakar ndax coono yi benn la waaye dañuy am contentement rek contentement bi ñu am mooy bu ñu déplacé woo jógee Ndakaaru ñoo ba fii teeru bi ñu teeru kàddu yi ñu fi dégg ñu yëkkati ko ak fi ñu classé woon mbër dañ ci am sant yàlla bu wér mm-hmm. ñun nag li ñuy xeex ci làmb lenn rek ngay mën a wax du ma ànd ak ñoom ndax dañoo laal sama nit mais doone li ñuy wax da dëgg moo tax ànduma ak ñoom parce que lenn rek la ñuy xeex mooy signe de respect signe de respect la ñuy xeex ci làmb c'est-à-dire nag xeex bi ci mbëri ndaw la basé wu ndax mbëri ndaw yee koy xeex mais comme ni ko Kona waxe waxee Balla Gaye sax ku jógoon pour teg ko ci làmb loo ko warul teg balaa Aziz Ndiaye di jóg ñun ñooy njëkk jóg parce que ñun làmb moo ñu neex mm-hmm. dama ne li def mun nañ ko def bu ma neexee bu ma génnee fii ma jubal fi ñuy daggee bee avion dagg beewu delta dem Amérique tëdd fa léegi-léegi mun nañ ko mais làmb lañu bëgg moo fi bàyyi làmb la ñu bëgg mbëru làmb ci koñ mbëru làmb ci dëkk mbëru làmb fii ci Sénégal ñu taxaw ne mënuñu ko jox benn signe de respect te pourtant léegi laay goote bu amoon seen mbokk buy jógee Wagadugu mënoo koo teetal kees da nga naan ko boo laaj wàccee kees laajal ko ñoom laay goote boo wàccee kees rek laajteel kër ñoom ambulance mooy teetal bi gën a gaaw doo ne kër ñoom monsieur le maire doo da ngay joxe benn kër mbër rek mooy teetal bi gën a gaaw aajowul yor téléphone aajowul mu yor numéro aajowul mu yor dara da nga naan ko fu la oto bi wàccee ci kees borom jakarta boo romb ne ko ñoom ambulance laa jëm mu dawal ba seen buntu kër kooku ñu ne du dara ci réew mi Sénégal ñu jël làmb def ko benn jëluga ay exemple parce que xam la moo tax ko jëluga ay exemple ñi si nekk dañoo am doole dañuy seetaan làmb mu ñu dóorante dóorante yi métti mm-hmm. ñu ne kon boo dumaa xaar nga egg seen kaw Covid bi mu njëkkee am Sénégal làmb lañ njëkk a tëj ñu ñëwaat ñuy dawal ñu ne troisième vague man bi ñuy tëj làmb ji laa waroon bëri ci bis bi heure bi may takk ngemb lañ ma woone ma doo bëre. ma sama takk ngemb jot ma war a dem takk ngemb pour dem arène bëre ji lañ ma woone ma làmb ji amul dimanche bi ñu ko tëj laa waroon bëre mais làmb rek lay doon pourtant bi ñuy tëj làmb Wally Seck daa waroon tëgg tëngéej mais ministre de la culture daa dem ba këram waxtaan ak moom dédommagé ko doo ko annulé que Wally Seck nit la mais mbërum làmb moom mala lañ ko jàppee ok mais ñun nag nangu nañ doon dof mais dof yoo xam ne koo ci seet si këram nawloo ko lañ ñun ku ci yendu suñu kër xam ne ñoo la gën a doon responsable li ñuy daj doo ko daj li nekk suñu kaw nekkul sa kaw dof yoo xam ne ñoo leen yi ñun ñooy dawal oto yi a foto ak moom si buy bëree stade vingt cinq mille places ñëppay fees ku seetaani dof yaa moom da a sore 25 000 places ñu feesal ko ba mu fees dellu ñu ne ay dof lañ mais ñoom nit ñi la ñuy tuddee programme dof yi ñu nangu ko dof yoo xam ne boo buggee siiw si ñoom ngay mën a jaar ni ko suñu grand Balla ju waxee politiciens yi sax bu ñëwee ju gox bi fii pour nga maîtriser kees dëgg fexeel ba téye laay goote def sa poos boo ci tegee ambulance yootu moo daan te téye sa poos kees amul ku la fiy teree dugg campagne amul boo demee parcelle def ko Modou Lo dem Guédiawaye def ko Balla Gaye lan ngay bëgg ci Ndakaaru doo ko am mais ok léegi kon lan mooy jafe-jafe yi ba coono yi ñu nekkee ko làmb nag dama koy wax boo gisee yenn coono yi xaw a bëri trop mooy daa bëri ñu mel ne mobile ñi war a ñi war a déglu ñooy wax sama genre internet boo taal fekk leen fa te ñun bëri xam-xam dañoo war a di déglu affaire yi tasaaroo nag mujj doon marché bu laal yi da nga gis ku yor budget 1 million war a tëgg làmb programme bi muy am mooy mobile laa bëgg ak laay goote. jox naa la sama kàddu pare naa mu des neuf combats yu ndaw ñoo neuf combats yu ndaw ñoo war a indi reliquat laay gooteeg la manqué ci avance am ak la war a dem CNG ak lépp parce que premier combat bi 100000 nga koy fay jox ko 3 bolok bi mu jaay bolok bu ne 200000 muy 600000 mu jaay ko jël ci avance am 50000 versé si la 550000 nga dolli laay goote juróom fukki junni di xaar adversaire am mu ñëw noonu lañ koy jàppee ba combat spécial bi lañ ciy fayaat 300000 mais il faut ñu waxtaanee ko mooy li may wax rek gis nga làmb. jarul xët-xët bi di métti jarul dara nga ñett yi ku koy def doo ci jëlee ndam xëbal jàmbaar rose mbopp ak yafal màggat ku ci dëkk doo ci am ndam matul wax c'est-à-dire pour làmb ji tege fi mu war a tege dëgg-dëgg faaw ñu bañ a jël ne kii mooy diw faaw ñu dindi tur jël xam-xam teg ko compétence mais làmb dafa am problème nga ñëw di wax ñu ne la yow koo daan no nga dem fa ñuy tënkee lépp làmb doo fa fekk mbërum làmb mu toog kon ñooñu kuñ daan. nga ñëw ci làmb ñëw ci làmb di wax ñu geesu na la koo daan ba war a wax nga dem fañ teg nga xam ne lépp làmb fa lañ koy tënkee amul ku mës a takk ngeem mais ñoo ñoo war a wax. nekk yoo xam ne làmba leen jëlee ci def na ko naka sudul noonu kon faaw nga xamal état ne ko làmb ji bu yàqoo musiba la ci réew mi. li étudiants yi di def te matuñ 300 personnes mbërum laam mënu ko. wallaahi seen bourse tarse une semaine ñu taal biis yi ci réew mi yëpp nga jox leen seen bourse defaraat biis yi mais du ñu ko def xam nga lan moo tax du ñu ko def biis yi ñun ñoo ci yéeg ñun la suñuy yaay di yéeg ñun la suñuy papa di yéeg du ñu yàq dara ci réew mi ndax bu ñu yàqee réew mi li fi yàq ñun lay yàqul si suñu kaw lañ koy jëlaatee pour fay ko. tey ñun dem nañ ba lii ñuy dox nii dem nañ ba ay mbër yu mag.

ah kon ñii seen wax ji yëpp dañuy dóor léegi nag laam moom li ci neex mooy dañ naan Kona nga naan non Matar Ba sama xarit la bi may takk jabar dafa ñëwoon ñun dañ ko fay fal pour muy dem ay takk jabar sama yaay gaañoo dafa ñëw kii naan sama doom bi ma koy tudd moo fa jiitu ministre des sports nga naan bi may tudd sama doom lu suñu yoon bu booy tudd dañ kaa fal fii pour muy dem ay tudd dañ kaa pour sport Sénégal mbëri simple yi di dem bëri ji chef de l' état di dem bëri ji drapeau chef de l' état ku ne xam na ne lamb fii bu nekkee trophée li espoiru lamb li mu defal Sénégal am football defalu ko Sénégal. football bu ñuy dem di compétir et ministère des sports du leen recevoir de pare lañ leen di recevoir Macky taxaw jox leen drapeau mbëru simple yi bu ñu leen di recevoir ci ay mairie fu ne la ministre bi di romb ak otoom ne leen duut drapeau bi bu ñu jógee compétition bi ñoom ñooy jël trophée bi imaginer ñoo koy jël mais dañuy ñëw ba boo maris oto bi kii ñibbi kees wàcc laal oto kees kii ñibbi mbuur wàcc jaar nii ku xamalan nga ci am médaille bi sa baat bi nga ànd ak moom sa kër boole koog naan champion d'Afrique la Sénégal dem fubal ñu def ci suñu lépp ñu dóor leen ñu ne nañ leen teeru ji ñu ñëw ñu jox leen li ñu leen digoon lépp fii joueurs yi fubal Séné yi fubal fii Sénégal yëpp ku ci nekk état Sénégal dalaa jox passeport diplomate ko ku ci na la kër goo xam ne compétition moo tax mu jox la ko mbër yi mbër yi bëreel Sénégal chef de l'état amul ko am visa pour amul ko am scooter boo xamante ne nii bëree woo jënd ko parce que boolewuñu ko ci sport bi te moom li mu jël ci trophée football jëlu ko làmb li mu defal Sénégal sport Sénégal defalu ko làmb ndax ku nekk xam na ne ñun ñi suñu génération fàttaliku ñu fu équipe nationale Sénégal demee compétition ñàkk ko bu fekkee amagum na fi ñu ma si mën a fàttali. ci ba tey équipe nationale bëre bi demagul ñàkk ko mais fekkee guñ fi équipe nationale football bi demee indil ñu ko. Ah, ok léegi nag ñun waa làmb nañ xam loolu. bala ñu fiy jógee te ñu xam ci yan condition lañ fiy jógee di nuyu tamit. ñi ngi nuyu tamit presse bi yëpp ndax lii nii yëpp ñuy lancé bu dul woon yéen mun naa bañ a yegg fenn ndax tey yenn télé yi boo leen na yenn sites yoo xam u wooyoo duñ duñ fi mën a ñëw kon ñi ngi lancé message site internet yi nga xam ne lu ñu woote ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñi ngi yëg tamit seen i coono ci làmb des ngeen ñëw ay làmb yoo xam ne dañ leen di bëgg a daggaloo ticket ci waaye ñu yor carte presse ay làmb yoo xam ne dañ leen di wax du ngeen fi sax dugg ñu ngi koy yëg promoteurs yi koy def bu ñu ñaan yàlla ñun ñu xamagum ci benn promoteur bu boobaa tamit nii lay demee si ñoom parce que ñun làmb lañu fi nekkal di sant grand yi ñu accueillir kees xam ku ci mel ne grand bee nekk CNG ku ci neew nuyu tamit waa Tivaouane yi ñu ngi leen di bëggee baax di wax ne dañuy ñëw Tivaouane nekkul ñëw ngeen fii rek garaawatul dañuy ñëw ba Tivaouane waxtaan seeg yéen parce tamit am na loo xamante ne xajul ci jotaay bi faaw ñëw seen a dem Mbour ñi ngi war a dem Mbacké ñi war a dem Kaolack ñi war a dem di nuyu waa kees gi yëpp yëpp di nuyu tamit suñu grand pambay ñu koy nuyu bu baax dégg naa ko mënoon bëre la ci li ma booy wax booyee ko wax ci ginnaaw ñu ngi koy ñu ngi leen di nuyu a ah, waaw di wax waa kees tamit comme ni leen ko waxee rek ngeen teg seen bureau mais bureau bi lii laay war a suuli bu ci ambulance bokk parce que bi muy waaj wax gis naa réaction yi <laughs> bu mu bokk ci bureau bi ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi sant ñëpp waaw salaam jërë ngeen jëf waaw c'est